semaine wàcce na ay kaamil jàng ay xasida euh, Sénégal taw jàmm am euh, ñuy sant ñëpp tey nag dama ñëw voté ànd ak sama mag l'honorable député Diouldé Guissé li nga xam ne mu ngi ci coalition Yewwi Askan euh, naataange askan bi donc man ma jiita parti bi nga xam ne mooy fulla ak fayda nekkoon ci Yewwi Askan bi démissionné bàyyi ndax seen njuuj njaaj yi nag ñu doon def foofu ci biir Yewwi Askan bi sunu xaalis bi nga xam ne ñun leader dañoo cotisé ay millions lu mot genn wàllu milliard cotisé ak li ñu nga xam ne dañu ñu ko jox bitim réew Ousmane Sonko ak xalifa Sall ak Malick gàkku ak waa PUR di ay sàcc yoo xam ne seen ni ñuy sàccee dafa leer Sénégal yëpp kuy sàcc nag kenn dugg la dénk réew moo tax ma ne assemblée nationale bu ñu buggee bu jub boo xam ne ay loi yu ñuy jude li ñuy voté ay loi yu baax la bi euh, Sénégal yi dañuy votel ku ne ba mu des yeewi askan man Ablaye Mamadou Guissé loolu laa wax ku nekk nag yaa libre ce choix euh, votel ku la neex